nee na Goulet Dieyna Baldé di àddu si baayu doomam jooje di Mamadou Diop PDG bu ISEC moom nag nee na euh, yéenewul kenn kaso ga bëggul kenn nekk fa ba tax na Dieyna sax di naan ameelul kenn een baal na ñëpp ak tey baalu ñëpp ak ba loolu nag la leeral lu am solo moom moomee Dieyna Baldé euh, di rek lu ñeel monsieur Diop ma ñu téye ca kaso ba mën naa ne rek problème bi du si moom moomee Dieyna euh, ndaxte rek bu sañoon duñu fa téye kii di monsieur Diop tey naan rek Euh, moom euh, moom mee rek di monsieur Diop nit ku baax la euh, nga xamante ne nii nangu naa sonn si nit defal nit lu nekk ndax mbaaxam si noonu jey naa di naan sax bu desoon si moom képp ni kon kii di Mamadou Diop génn na foofee ñu ko téye mu doon nag luy firndeel ni baayu doomam ji si kaso ga neexu ko benn yoon moom di yaayu Seydina Tanor Diop ba ñu ko laajee nag ndax bu Diop génnee dina nangu rek nekk ak moom yàlla moo xam la si Dieyna dal di tontu mu doon luy firndeel ni rek moom moomee bañu si benn yoon.